Moustapha actualité moom ragal naa droit dara doxalal. ragal naa du neex ndax maa Cheikh Tidiane ñi war a wax ñëpp dañoo soj. wax bi dafa métti que. damaa la gis di ngeen ko hmm? sedd nag bu sedd froid alors euh, Aïcha sànq maa ngi euh, maa ngi wax ne euh, méttit bi ngay seetlu. sooy yeewoo Dakar. xam naa ne li ma amul habitude di génn heure yooyu moo tax su ma gisee muy attirer sama attention tout le temps euh, mais dama seetaan al talaata bii ñu weesu émission balance bu ñoom Pape Ndiaye ak équipe mm-hmm. ma jàpp ne seet l'une des meilleures émission balance yu ma seetaan ci weer yi ñu génn invité bi doon ñaari xale muy Papito Kara ak euh, Ousmane Diagne ma déglu également benn émission buy am ci Zik FM. Ali Mandione ak Cheikh Sarr. doon ci dalal Karim Xurum Xaq la particularité entre ñi ma gis balance ak ki ma gis Zik FM <coughs> mooy ñett ñëpp prison lañ jóge Cheikh Tidiane boo seetloo li leen yóbbu prison bu ñu la ko waxee cest que caaxaan mënul weesu loolu c'est-à-dire que tey ñun ñi toog fii ak ñuy seetaan ñëpp. ku ci nekk ci ñu rek mën ngaa jàpp ne mën ngaa yenn ci prison. Mhm. te defoo kenn dara tooñoo kenn dara. Mhm. dama dégg Papito Kara mu ne moom dafa amoon habitude di def ay revue de presse détourné mhm. wala satirique su ko neexee nga tuddee ko noonu. nee na nit woo ko benn jigéen bu mel ne Aïcha Jaxate ne ko dama amoon publicité yi ma bëggoon def bëggoon nga jàppale ma ci nangam ak nangam joxante rendez-vous pour gisee mu dem taxaw ko xaar nit fekk ko wan ko carte ne ko c'est la police jël yóbbu. ci la gi a gisanteeg njabootam ba cinq mois après il n'a ba léegi moom xamul kes ce qu'il a ma déglu. te amul benn plainte bu ñu gàll ci ndoddam. Hmm. wallaay kenn porté wu ko plainte. le journal l'observateur le groupe Futur Média bi ñu doon wax mësuñu taxaw ci police wala fenn de dañu porté plainte te tëdd ji procureur ma déglu Papito Kara xam nga wax nañ fi plusieurs fois ci ci taabal jii ne. dafa reetaan moo doon ñu tëj ko. ma noon yàkkam ci moom mu génnee mu wax lan lañ ko reproché. Mm. Mm. Ousmane Diagne. muy mooy Ousmane Diagne. boo ko dégloo mu wax day confirmer ak li ñu doon wax fii. Mm-hmm. mooy dafa gis publication mu partagé ko def ci ay emojis comme on mm-hmm. nga xam ne ça tous les ñi ëpp Sénégalais ils le font tout le temps Cheikh Tidiane kooku tàggal nañ ko ak njabootam lu lu jege juróom-benn weer ndax loolu. Karim Xurum Xaq naka noonu booy seet loolu ci ci réew. nga gis ne jamono ji ndaw yi ñu ci baree bari ci ñoom jàpp nañ leen def ci kaso bi te ñoom ci si bopp ñoom seen bopp ñuy jàpp suñ leen ja dee jàpp xamuñu lu tax suñ génnee ba ñibbi seen njaboot soo leen laajee pour ñu expliquer la lan lañ def ñoom mënuñu la wax lii moo tax suñu tollee foofu ci état boo xam dañ ne réewu liberté la réew démocratie la réew respect de droits de l'homme képp ku am baat ci réew mi laa la wax képp ku am baat ci réew mi soo waxee ñu dégg la nga mel ne yëgoo loolu y'a problème moo tax man j'étais très heureux bi ma déggee les organisations de défense droits de l'homme ñu def une conférence de presse mm-hmm. pour attirer attention wu sénégalais yi sur le danger bi nga xam ne moom mooy plané ci bopp sénégalais bu nekk te ñooñu mooy ñi ma lim ñi mooy ñin xam mm-hmm. mais ñoom seen bopp dañ lay nettali ne ba ñu demee prison waxuma la dara mais condition de détention yi nga xam ne moo nekk prison mais dañ lay la bari na ci ñoom ñoo xam ne rencontré nañ fa ay ñoo xam ne certainement seen njaboot xamul ne sax jàpp na leen ndax loolu ña nga fa. c'est pas possible. oui dégg naa Karim Xrum Xax mu nettali koo xam ne ay agresseur ñoo agressé nit daw fekk ko fu muy jaayee kafe ñu toog fa gars yi tracé téléphone bi seen téléphone ba fekk leen foofu ñu toog ñu jàpp ko yóbbaale. ñu <laughs> jàppale jaay ko café waaye def naa dem na ñaar xaw ma ñetti atu ba ses daanaka dëjël nañ ko ba libeere jabaram mu dem ñibbi parce que pour ñoom dee na xamuñu fu mu ne il est en prison yooyu soo koy dégg ci Sénégal mu mel ne dara xewu fii man ça ça me fait pleurer d'entendre ça bi ma déggee Karim Xurum Xaax ak Aliba Dione ma gis ñu ne Aliba Dione bi mu koy déglu dafa doon jooy ma ne man man Moussa Fall néew moo ci émission bi mais en l'écoutant j'ai pleuré parce que dama dama xalaat kooku mm-hmm. xoola un jeune sénégalais comme ñu ma doon wax sànq ci fajar gi mhm. yeewu suba di taaba taaba defar sa benn café ak sa benn was di fa toog di fa di ko jaay ñu jàpp la yóbbu prison comme ça même bu fekkoon ni agresseur la mhm. ñu jàpp ko yóbbu prison comme ça le minimum bi un état buy taxawu ay doomu aadama am ay services sociaux yuy occupé ci yooyu ah, le minimum ñu waroon def mooy enquêter pour xam kii mooy kan lu tax kenn du ko seet si lu tax kenn du ko taxaw xam njabootam waaw mu nga dëkk ci gën gi ne c'est vrai ñoom Karim Xurum Xax ñoo dox ñoom Karim Xurum ñoo dox ba xame njabootam hmm. ne leen seen gone gi deewul ma nga prison hmm. la ilaha illallah xoolal les dégâts que te lii moo ko yóbbu prison te nee na prison boobu boo fa demee di nga fekk ñu ñu dóor ba seen ba seen bët tuuru hmm. di nga fekk ñoo xam ne Euh, euh, Cheikh Yane tàggoo ak seen xel. bu hmm. yàgg sax. bu yàgg pourquoi parce que ni ñu fa nekkee la. ba pare xam nga ki tooñ ñu yóbbu ko prison. Mhm. moom moo gën a am facilité pour résister. Mhm. Mhm. mais ki deful dara ñu yóbbu ko prison boo boo ko taxawul mu tàggoog. moo tax war nañu taxawaat bu baax a baax sur le respect des libertés dans ce pays. ñun muy journaliste yeeg défenseur des droits de l'homme yeeg yooyu je crois que lot nañ ci di ci wax. mais ñi ci mën dara ñoo ci war a taxaw. waaw man Moustapha ñaari mbir. Mhm. moom mu marqué rek. si mhm. bi euh, balaa ngaa dugg ci sujet bi. Mhm. ñaari mbir moom mooy nekk fi ñu doon raconté seen galère ci kaso bi. dem bay wax ne que nit yi nga xam ne seen xel euh, fa sutante mooy dof yi. ak nitu yu réer yi ñoom leen daan boole ci même structure de santé di leen faj. ñu hospitalisé ndoo ci même bërëb. plus grave beneen bi cellule bi nga xam ne ay fa la tëj. Mhm. ñi nga xam dañoo tàggoog seen xel. Mhm. fa la tëj ñi nga xam dañoo siburu wala seen bopp di metti mhm. jaxase dañoo feebar. Mhm. ci beneen bi ma gën a marqué aussi moom mooy jeunes yu toll ni ñoom ñu tëj leen tant de mois. ñu génne ne ñoom ils regrettent rien si c' était à dañuy delluwaat. c' est ça loolu mooy danger bi wax. danger mm. nit li muy ragal. mooy li mësul découvrir. Mm-hmm. xam nga gaynde dañ koy ragal rek parce que dañ koy dégg rek. mais fii ku fi xeexoon na gaynde ba gañe ko dootu ragal gaynde. jeex ñi dem prison ñëpp ku ci génn man gisuma ci kenn koo xam dafa génn la ma doon def bàyyi naa ko. Mm-hmm. parce que bëgguma ku ja ku ma jàppaat déedéet dañ naa la tey bu amaatoon ñu wàccoot ci mbedd bi defaat prison. Serigne Xrum Xax il y trois quatre fois. Mm-hmm. waaw ah, bëri na ñoom ñoom ah Papito Kara boo leen déggee c'est discours. Mm-hmm. loolu nag dafay indi danger ci réew parce que ça me permet ay jeunes ñu avancer un peu c'est une soo xoolee série d'arrestation yi nga xam ne moo am ci réew mi Cheikh Tidiane. arrestation yi nga euh, Papis euh, kii moo ci mujj dem Hannibal Djim. Hannibal arrestation yoo xam ne. ñii ci mbedd mi ay manifestation ñu jàpp leen ñii euh, dañu def ay posts sur sur Facebook ñu jàpp leen ñii dañu imaginal dañoo wax sax ci groupe WhatsApp imaginal ñun ñii ñu amoon un group WhatsApp rek tuddee ko Petit Déj du vendredi. Mhm. di ci wax suñu soxla Serigne wax ci dara wala faat wax ci dara message bi génn wala ñu intercepté ko sa dem kaso xaj na ci. parce waa waajan jàppee Tamba defe naa fan yi nee nañ d' après journal Libération benn message bu ñu def ci bu ñu def ci benn groupe WhatsApp lañ intercepté mi ngi mi ngi kaso alors. foofu la ñu toll ci réew mi ça veut dire quoi Ami Collé Dieng dalal na ko fi mhm. ça veut dire quoi ni ñi ngi nekk ci benn réew boo xam ne à tout moment tu peux mu neex la mu naqari la beneen bi mooy Cheikh Tidiane ñu bañ ko ñu bañ ñu ñu nangu ko mooy Sénégal à douze mois de l'élection présidentielle ñu ngi sous tension mhm. sous tension sous tension te dafa teel te li nga xam ne moom la préfet bu Mbàkke boobu def démb loolu mooy lii lii li li ñuy wax euh, mettre de l'huile sur le feu <laughs> c'est-à-dire que fekk luy tàkk nga yokk nga sotti ci pétrole mhm. parce que réew bu nekkee sous tension comme ni mu nekkee nii mais je crois que les autorités surtout ñu yore l'administration ñoom ñoo war a gérer ak intelligence mhm. gérer ak intelligence mooy lépp loo xam ne mën nañ ko permettre des sénégalais ñu exprimer wu en toute liberté te kenn du xeex kenn du xuloo nga yombala leen ko mhm. soo ko deful tu crées de la tension mais Kër Massar gars yi meeting nañ fa kenn xulawul kenn xeexul. Mm-hmm. waa Benno Bokk Yaakaar meeting nañ fii ci ci ci ci Pikine la même chose même si ñoom jàppante nañ seen biir mais en tout cas y' a pas de dégâts. Mm-hmm. ak yeneen ak yeneen ak yeneen. mais tey su fekkee ne dañu nekk sous tension comme ça yow nga nekk benn préfet boo xam ne dañu la daggal as tuut ci parcelle de pouvoir bi ñu dénk président de la République ngay ngay décider mais tu décides avec mais tey la tension qu'il y aura certainement tey jii ci bëccëg gii. ci Mbàkke mais loxo préfet mënu cee génn parce que lu yomb la woon pour mu régler ko muy benn ñaareel ba bu ñu nekkee à douze mois d'une élection présidentielle man dama doon espérer ci réew mi ñu nekk ci li nga xam ne mooy normal en démocratie Cheikh Tidiane mm-hmm. mooy comme li ma gisoon ay ñoom Malick Gakou mhm. mhm. ne candidat la di wër réew mi. di dem fu ko neex. soo ko ne candidat la di wër réew mi di dem fu ko neex. Khalifa Sall ne candidat la di wër réew mi di dem fu ko neex. parfois même les bu fekkee dañu sentir ne danger alkaati yi leen. Mhm. parce que loi moo encadré parti politique. moo ko may liberté wu. di dérouler ay activités mais tey li nga li ngay seetlu rek mooy le droit de faire de tour du Sénégal. pour chaque leader politique. Mhm. dañ ko xañ ñenn ñi. waaw te boo ko xañee ñenn ñi di créer de la tension mu neex la mu naqari la te moment wu tension boobu bu ñu ca tollee te réew mi kenn tegu leen tension boobu. Mhm. bu dul benn phrase bu fi Macky Sall waxoon muy nii oui nii non. Mhm. tey Sénégal bu ñu ne woon président Macky Sall mii dana respecté kàddu ga mu joxe woon ne du candidat à l' élection présidentielle waa Bennoo tànn seen candidat Cheikh Tidiane les gens vont mener campagne avec le sourire. waaw <coughs> gars yi nu mu leen neexee. bu waa Bennoo dee gagné gagné bu keneen dee gagné gagné. Mm-hmm. mais le fait que ba léegi le président de la République déterminé wul boppam ne damay demam duma dem sa pose problème et su président tollee fu mel noonu Cheikh Tidiane nekk njiitu réew. jàmmi askan wi la paix la stabilité du pays ne sa loxo da ngay soxla. ay leaders d'envergure yoo xam ne mën nañ nekk ay religieux ci ñoom lañ ko daan gën a séntu nag lu bëree bëri mën nañ nekk des personnels de la société civile mën na nekk sax sa ay xarit ay xaritu président mën na nekk ay collaborateur président mën na nekk soxnawu président boo xam ne moom mooy tijji ay gët ay gëtam tey doon nañ xaar ci ñu mel ne les proches collaborateurs du chef de l'État ñu bañ a topp seen bànneex di ubbi ay gëtam parce que nit la mënul xam lépp mënul gis lépp ci li nga xam ne moom mooy bax ci réew mi kubéeru cin googu bu ñu ko tijjiwul dana éclaté. buñ ko ko mës a wax. tey jii boo déggee des discours comme le premier ministre Amadou Ba. des discours comme le ministre de la jeunesse Pape Malick Ndour des discours comme ay Farba Ngom affaire yooyu mais tu as un problème. Mhm. pour du ñooñ ñooy aider Macky Sall. Mhm. je suis désolé du ñooñ ñoo koy aider moo tax ma jàpp ne dans ces moments là le Sénégal le président de la République moo ci wom dafa soxla le discours de homme intelligent mhm. foofu laa nawee sa Seck bi ma ko dégloo démb démb da ngay déglu Idrissa Seck xam nga Idrissa Seck Cheikh Tidiane dafa benn problème <laughs> mooy ñi mel ne man à commencer man sama bopp mhm. souvent dama koy juger ci act yi mu posé ces dernier mois c'est vrai waaw mhm. Mhm. te loo ko mënti juger sax sax ci actes yi mu posé ces derniers mois di nga ko nangul lenn mooy c'est un homme d'une intelligence rare c'est boo xam ne xam na wax xam na nu mu koy waxee te il faut ñu déglu Idrissa Seck bu baax a baax xam nga démb dafa wax ñu bari ne Idrissa Seck rabale na ses propos moo ne fi woon mm. euh, euh, la vision de Macky Sall jëm ñaaju la yor ah. tey rom nangam ak nangam mm-hmm. Mm-hmm. tagg na ko nangam nangam mais dafa am Cheikh Tidiane def nga presse écrite def naa presse écrite ah. gis nga journaliste presse écrite dañ leen di jàngal ne leen texte lu mu gudd gudd mm-hmm. li ci am solo mooy l'attaque et la chute man bi ma déglu Idrissa Seck ba mu pare lenn dong moo ma intéressé ci waxam jëpp mooy la chute la chute du discours d'Idriss Seck chute boo xam ne c'est un discours d'un homme intelligent mm -hmm. et j'espère que l'intelligence de Macky Sall dina ko permettre mu dégg bu baax li Idriss Seck di wax parce que gis naa bi mu ko waxee ba pare yenn responsable réew mi même tey ci suba sax ci yenn médias yi. Mm-hmm. ñu commencé di assurer le service après vente. Mm-hmm. mooy expliquer ne way waxul lii lii la bëgg a wax ndax naa mm-hmm. mais li Idriss Seck bëgg a wax. dafa leer te il faut ñu taxaw ci. mooy mooy la chute de son discours d'hier dafa wax Idrissa Seck mu ne dafa mu ne dafa bëgg a terminer par une prière ñaan ñaan mm-hmm. ne président de la République je prie Allah qu'il dilate votre poitrine pour que vous acceptiez euh, toutes les critiques parce que moom dafa jàpp ne accepter les critiques c'est une des exigences du leadership mu ne qu'il apaise votre cœur que les choix futurs que vous aurez à faire puissent vous valoir un parachèvement de votre parcours exceptionnel d'une telle beauté qu'il n'y aura d'autre choix que de vous garantir après une longue et heureuse vie mmh. après auprès des vôtres mmh. une mention honorable que les langues euh, une mention honorable pour les langues de la postérité, postérité. Mhm. Cheikh Tidiane li Idriss Seck wax noonu dafa jar ñu wax ko ci wolof. parce c'est très intéressant. tekkil ko waa réew mi. tekkil ko ma koy defee saa su ne. mais man maa bëgg a jël habitude boobu ma. Ah. waaw tekkil waa réew mi tekkil waa réew mi waaw. nañ ko ci Felin <laughs> waaw ak Idriss Seck. waaw Idriss ne dafay ñaanal président Macky Sall. yàlla yaatal ab dëndam. ba mu mën a accepter critique yépp yi nga xam ne mooy jëm ci moom yu baax ak yu bon parce que accepter critique yooyu ak lu mu métti métti yu baax ak yu bon mm-hmm. dafa bokk ci li nga xam ne mooy jikkooy njiit dëgg dëgg dëgg te jàpp na ne Macky Sall njiit la mu ne ko yàlla na yàlla dalal sa xol mm-hmm. dalal sa xol ba choix yi nga war a def choix yi nga war a def ngir jeexal yàlla dimbali la ba mu nekk choix yoo xam ne dafa lay permettre sa parcours exceptionnel maanaam sa jaar-jaar bu rafet bi. Mm-hmm. nga terminer ko ci taar boo xam ne mm-hmm. di nga nekk ci jàmm. ak sa njaboot ci ana yu bari yi nga xam ne moo la deseel nga war koo dund ba bu ëllëgee boo fi jógee ci làmmiñ yeeg ñépp ñu garde ci yow. wayu rafet wayu rafet. Mm-hmm. ki ko traduire ci traduction bi gën démb. bi may xool mooy le journaliste Mame Gor Ngom mu ne Ndaamal Kajoor. mburu ak soow daf ne soow daf ne mburu <laughs> na nga jéem a góorgóorlu yaatal sa xol di baale ak lu mu métti metti maa ngi lay ñaanal nga tànn yoon nga tànn yoon wu baax ngir jeexal ba ëllëg doo ko réccu lii la Idriss Seck wax Macky Sall ah. et c'est très important et j'espère que le président Macky Sall ak ñi mu àndal dinañ ko dégg te Cheikh Tidiane Idriss Seck li mu ko wax mooy bu fi pour traduire ko rek ci lu leer. Mhm. mooy bu fi wuti ay troisième mandat. Mhm. Mhm. bu fi wuti leneen. jeexal ko ci jàmm ak salaam dem am une retraite paisible ak sa njaboot. soo liggéey Sénégal gépp garder wooy wow ci yow parce que Idriss Seck bu ne ko jeexal ko euh, ci ci rafet ak dal. mooy bul wuti troisième mandat parce que Idriss Seck xam na ne wuti troisième mandat. du indi jeexal gu rafet. Mm-hmm. Mm-hmm. est ce que baatu jeexal ba rek. wane wane wane wu ne jeexal parachèvement mm-hmm. mooy jeexal bi la mooy jeexal. parachèvement boo xam ne loolu la jërul assurer service après-vente parachèvement mooy jeexal. te Idriss Seck wax naa la sànq ne euh, dañ koy juger ci acte yi mu posé dernièrement moo tax ñu bari à commencer par man. di ko xalab xalab naa ko fi plusieurs fois te Idriss Seck dafa nekk sëriñ un homme politique boo xam ne man bokk na. ci homme politique yi ma gën a suivre Sénégal parce que waxoon naa ko fii léegi léegi nga wax ñu ko oui waaw c'est Idriss Seck c'est le seul homme politique mm. bu diriger un parti di di defar séminaire pour les cadres de son parti ca Saly mm. ma taale sama oto fii ci Dakar dem ba Saly fekk mm. c'est le seul parti xam naa su ma ko defal jamono ñi ñi Pastef ñu pourtant réew mi laa ko sa defal séminaire des cadres de réew mi dem fekke ko parce il est intéressant l'homme Idriss Seck. Mhm, mhm. très intéressant te yàlla daf ko dimbali woon mu am un xaw ma xaw ma ba xam léegi la parce réew mi ñëpp mere nañ ma amatuma fa xel mhm. mais parti la woon boo xam ne cadre yi fa nekkoon autour de Idriss Seck mais pour nga gis ko ci beneen part dafa jafe. jàppal Abdourahmane Diouf. juuf waaw jàppal euh, euh, nu mu tudd euh, Déthié Fall. ñeneen ak ñeneen ñu mel na ñoom am nañu ci des ak moom ba léegi. donc si Idrissa Seck laa bu dee wax loolu dafa jar déglu te man bi mu ko waxee dama ne Idrissa Seck lii mu wax ni soo ko jugé sur les disons derniers mois acte yu mu da nga naan dafa la bett même si on dit oui c'est un homme nuancé mën na wax lii alors que boo liggéey lee la xalaat mais en tout cas dama koy jugé par ak li mu wax ba pare mhm. jéem a retourner Aïcha dix douze ans en arrière pour xam lan moo tax ñu mën a xaar un discours comme ça ci Idrissa Seck Idrissa Seck Serigne mhm. bi ñu fi nekkee di werante naan Ablaye Wade mën na nekk candidat ak mënta nekk candidat Idrissa Seck faisait partie des gens yi nga xam ne ñoo gën a mener la combat contre la candidature de Wade mhm. moom mooy sénégalais bi nga xam ne moo demoon seeti benn nguur su tudd Guy Carcassonne c'est l'un des meilleurs professeur de droit public au monde mhm. en tout cas monde francophone pour mu wax ko ba xam ab Wade candidature am baax na wala baaxul waajooj ne ko Ablaye Wade constitution Sénégal mayu ko mu nekk candidat mhm. Idrissa Seck dem palais de la République réunion comité directeur PDS jàkkaarloog Ablaye Wade les yeux dans les yeux waa PDS gépp toog mu ne ko mënoo nekk candidat. Hmm. waaye hmm. Idrissa Seck l'a fait. le même Idrissa Seck moo fi taxawoon ne l' vingt sept de la constitution du Sénégal. Mhm. bi nga xam ne ci lañ doon sukkandiku pour wax ne Ablaye Wade mënta nekk candidat Idriss Seck ne c' est pas un problème de droit c' un simple problème de. français xam ne Ablaye Wade mënta nekk candidat. Hmm. mais français boobu. bii Macky bi bind ci constitution bi moo gën a leer. parce que bii moo ne nul. nul ne peut plus de deux ak consécutifs français bu leer bu leer donc le même Idrissa Seck tey man daf ma leer ne dina ko gêner trop moom Idrissa Seck mu taxaw di. défendre une troisième candidature de Macky Sall. gis nañ mere woon na sax Macky Sall bi mu génnee dem campagne yi. bàyyi leen fii nii à Dakar ñuy xeex troisième mandat mu ne ko. et Mm-hmm. exactement Idriss Seck bi Macky Sall yoxosoo mm-hmm. dem di battre campagne à du pays Idriss Seck mi ngi woon place de l'indépendance di xeex ak alkaati yi moom ak mm-hmm. Ibrahima ak Cheikh Bamba Dièye pour que Wade bañ a nekk candidat te seen xeex boobu bokk na li faciliter Macky Sall mu gagné parce que xëy na ñoom bu ñu campagne normalement Macky Sall mën na bañ a am li mu am nii mais bon loo loolu la yàlla dogal wala ñu séddoo ko mais le même Idrissa Seck tey lu mu nuancé nuancé man dama jàpp de ce qui m'étonne ce qui m'aurait ñu ñëw élection présidentielle en tout cas su ko defee parce que ba léegi damay jàpp ne li mu wax démb <laughs> jusqu'à mu wax leneen. ñu mhm. ñëw élection présidentielle Macky Sall nekk candidat la Idrissa Seck ànd ak moom di ko baataral campagne su boobaa ma ne nag Idrissa Seck moom comme la waa ji waxoon c'est fini njulug tubaab y a plus parce que il y a dix douze ans. le combat qu'il a mené contre la candidature de Wade mhm. li nga xam ne moo gën a cohérent ci moom mhm. mooy li mu wax démb mooy terminer en toute beauté ñu tànn kay Idriss Seck sax demoon na ba ne dama rencontré waa PDS. waaye bi xam nga boobu Wade mu ngi ci digg doole. Mm-hmm. Idriss Seck rencontré waa PDS ne leen dama bëgg ñun ñii ñëpp ñu xool ci ñun muy man di keneen ku ci mën a nekk candidat mu nekk ko te ñu bàyyi Ablaye Wade mënut a nekk candidat il a dit. Mm-hmm. il a dit aux gars te moment yooyu il fallait être courageux. pour le wax loolu waaw surtout su fekkente ne discours euh, Idrissa Seck bi ça a mhm. Mhm. ñu ko xalaatee par Macky Sall lui-même. Mhm. lan moo ko mën a fekk ci lendemain politique bu Idrissa Seck. alors parce que je me suis beaucoup posé beaucoup de questions mooy lan moo tax Idrissa Seck li mu wax nii mu préféré wax ko Macky Sall dans une rencontre publique. boo xam ne télévision yaa ngi fi caméra yaa nga fa téléphone yaa ngi dañu koy filmer di ko génne lan moo tax alors que xëy na am na possibilité wax ko ko dans un cadre privé lan moo tax mën na am que ni ñoom ñaar réeroo wuñu ci wax jooju mën na am mën na am également mm-hmm. que ni Idriss Seck daf ko bëgg a def li ñoom faatu def tiiñal <laughs> boole kook réew mi réew waxoon naa ko. ñëpp toog mu wax ñëpp dégg. ñu ne Idrissa Seck comme ni comme ni ko Moustapha Diop di waxee tey ci àjjuma ji jaanam wàcc na. li mu war na wax na ko léegi Macky Sall dégg ak mu bañ a dégg c'est son problème. su déggul mooy comme li si wax loolu da nga koy gis. ci act yi Macky Sall war a posé ci mois yu ñu jëm. Mm-hmm. soo toogee nga dégg ñu ne dàq na di Seck conseil économique social. Mm-hmm. dàq nañ Yankhoba Diattara ci gouvernement bi dàq nañ Sall ci gouvernement bi nga ne Macky saal kon li Idrissa Seck wax dégg na ko mais neexu ko mhm. su fekkee nag y'a rien tout se passe bien nga ne réeroowuñu mhm. waaye Moussa Ba man lenn euh, Moussa Ba uh-huh. man waxu politicien day man xaw ma lan la ak dëgg <laughs> waaw man xam nga man jëlul duma sa doom voilà dégg nga <laughs> euh, man daal euh, li ma xam moom mooy xam nga damay bañ bu ëllëg yi mhm. Idriss Seck toogaat fii ba sax mu ne xam yow da nga ni euh, que dafa intelligent. il est intelligent intelligent. am na sax ñu ne son intelligent moo koy joué ay tour merci mm. xam nga mun na dem ba ci biir ba ca kii ba ba ay mu ñëwaat taxaw ba si yaage ni mu defee discours bi ba sax mu ne nii laa ko waxee. yéen ñi waaw ko nii <laughs> comme ni tax lii laa ci jublu waxuma waaw lu dama ne fasatuma yéene lu simple la waaw su ñëwee ne nii laa ko waxee ni ni ni ngeen ko dégg ni ma ko waxee bokkul ñu toogaat dong waxaat waxaat ko ko bu leer bu fi Idrissa Seck toogee ne fasatuma parce que fasatuma yéene euh, décret di ma jox post di ma nommé ñu ne Idrissa Seck jaajëf <laughs> bu ñëwaat toog ne noo damaa waxoon ne fasatuma yéene mais ñu waxaat ko ko rek waxu politicien moom Cheikh. loolu la tu as parfaitement raison jërul dur ba sa doom. mais man dama nekk journaliste boo xam ne Cheikh. j'aime le du ma nekk ci bopp Idriss sekk naan bu ëllëgee mu xalaat leneen wax man dama koy joué ci li mu wax. ma dégg waaw vidéo baa ngi nii sama téléphone. déglu naa ko ñett ba ñeent yoon. li mu wax ma dégg moom lay analyser. Mhm. soo lëgee su waxee leneen ma dégg leneen. ñu décrypté waat c'est aussi mais Moussa Ba euh, discours bi ñaar c'est pas de l'argent comptant bi ñaar la dafa chanter bilan u Macky Sall. bi nga xam ni moom euh, peut-être dina ci comptable. mais aussi ñëw raxasu ba set ci li war a am. ci loo xamante ni bu dee dafa def choix par exemple briguer troisième mandat. Euh, la ca war a am yëpp mu raxasu ci ba set xam nga tey jii nit ñi naan dëkk bi nar naa tàkk dëkk bi nar naa kii mhm. mu raxasu ci loolu yëpp ba set est du loolu maanaam euh, am xel ñoru kajoor kajooram jàpp euh, yóbbu ko ba mu ne man d'accord naa ànd naa ci li waaye lii moom moom gis naa sama loxo laa gis naa suñu benn mbokk bu ko bind démb. Hmm. ne Idriss Seck ajoor ajoor dëgg la. Hmm? bu mag eh. te te eh, te wax ju wax ju yegg. wax ju yegg dafa ko moom. xam nga Idriss Seck il faut ñu ñu ñu déglu ko encore une fois. ci hmm. euh, euh, buur. buur parce que suñu président ay buur lañ. sooy wax ak moom doo ko xërtal. surtout bu fekkee dafa toog ci mbooloo parce que Macky Sall démb amoon na possibilité tontu lu ko neex sooy wax ak moom doo ko xërtal ci mbooloo doo ko doo ko doo ko ñàkkee euh, nu ñu koy waxee sax euh, man daf ma mas a dal euh, j'aime pas raconter cette anecdote là <laughs> mais daf ma mas a dal ma toog sama benn patron yàgg na nag mhm. ci benn réunion boo xam ne y boo beaucoup de mu wax mu wax ba pare ma jël parole ne ko li nga wax dara mu ci <laughs> ñu werante werante bu metti mhm. demande d'explication lañ ma ca dóor bi ma génnee sama benn confrère ku ma mag saan naa wax turam sax Charles Faye bu TFM mhm. woo ma ma ñëw mu ne Moustapha ma ko mu ne ma soo toogee ak sa directeur y de lui parler mhm. su ngeen wéetee yéen ñaar am na noo xam ne waxee du gën ak moom mais su ngeen mbooloo mhm. nga waxee ko d'une certaine manière day gis boppam c'est vrai boobu ba léegi nag su may wax ak kilifa ci yenn damay jéem damay damay def attention <laughs> mais mais ki Sall kilifa la daanaka buur la su Idriss de wax ak moom ci mbooloo bëgg ko jox message bu mel nii te man ma jàpp ne lii mooy message Idriss Seck en fait wax ji wax yëpp lii moo ci am solo moo am solo la suite da nga koy wax ne ko ah Diop nga sant nag la joree sa maam nag yaa fi def lii yaa fi def lii yaa fi def lii yaa fi def lii waaye defee nii mu gën loolu loolu mooy méthode Senghor mais loolu la Idriss Seck def démb ah ok wax dëgg tubaab bi da leen di tagg ba. def démb. yaa fi def tali yi. yaa defar raay bi. sa vision romb na jam ñaajo mm-hmm. yegg na Thiès mm-hmm. leadership bu mag nga incarné mm-hmm. waaye nag yal na la yàlla dimbali yaatal sa xol bi <laughs> ah, yaatal sa dënn bi nga am euh, gis-gis bu yaatu foofu la wax ji jëmoon daal daadi jeexal mooy parachever Idriss Seck euh, man dama yàgg déglu Idriss sekk nag wax dëgg yàlla mas naa bind ci moom benn texte boo xam dégg naa dañ ko yónnee mu liir ko reetaan ba sonn boobu boobu booba journaliste laa woon ci populaire Idriss Seck dafa am lu ñuy wax le choix des mots. xam nga mënoon na ne Macky Sall terminé. wala leen mais parachevé la wax parachevé. xam nga benn œuvre boo koy defar bañ ne en fait yooyu muy def yooyu. bañ ne yaa ngi koy parachevé mooy yaa ngi koy jeexal tëj ko. bouclé bouclé. Hmm. le choix des mots. pourquoi Idriss Seck a choisi parachevé non émission bi tey France lañ ko doon def comme ça ñu détaillé loolu. <laughs> mais mais c'est c'est tellement intéressant le mot qu'il a choisi parachevé la wax. moo tax xam naa ne bi mu ko waxee ba ñibbi këram gars yi neen ko ah xëy na li nga wax kii ne moo tax da nga gis fan yi waa réew mi mhm. ñu commencé génn pour assurer li tubaab yi wax li ñuy wax ci communication le service après vente. pour ñu expliquer ne non ni ko ñoom Moustapha Diop déggee waxewu ko noonu nii la ko bëgg a waxee nangam nangam mais niñ ko déggee cher. Mhm. noonu la ko jusqu'à ce que ci boppam. mu jëlaat kaddu ne waxewu ko woon nii laa ko bëgg a waxee. <laughs> alors Moustapha man aussi beneen chose euh, prête na ak sama attention un avant discours euh, ki nga xam ne moo di Idrissa Seck. Mhm. gis nañ l'arrivée du de vue ak a bu yaakaar ne moom bu demee 2024 mën na am dara. kon de Macky Sall manqué intelligence nag su ma ko sañee waxee noonu. gis nga euh, Aïcha man un président de la République buy déplacé fii ci Sénégal ma gis journaliste yi di perte seen temps naan il a drainé des foules ak euh, mobilisation nangam ak nangam dama naan vraiment soit les journalistes sénégalais duñu ñu deltu tuuti ci ginnaaw. wala. Mm. dañoo nekk ci je sais pas moi le superficiel di ko xool. Mm. un président de la République au Sénégal. Mm. li gën a banal ci activité am mooy bu dee déplacé wu mbooloo topp ko la preuve bi Macky Sall déplacé wu dem Thiès du waa Thiès rek a ko tertu. xombal ak Kaffrine ak fu nekk la nit ñi jóge ñëw mm-hmm. tertu. Mm-hmm. loolu ka un président a des ñi mu àndal ils ont des moyens de mobiliser des cars Ndiaga Ndiaye fu mu leen neexee. Mm-hmm. nettali naa la fii ne la bi Abdoulaye Wade di gagné Abdou Diouf en 2000 Abdou Diouf tenir na benn meeting élection présidentielle stade. watel bu Louga. waaw waaw stade watel boobu dama ne la boo fa defoon Liberté 6 gii ñëpp xaj biir. ngandam stade la fa la ñuy dawale fasu course yi. Mm-hmm, mm-hmm. Abdou jub da ko feesal dell. meeting fa te teewul mu daanu. te nam ko feesale foofu noonu la feesale fépp fu mu dem Sénégal. ba su lay Wade rek ba mu ñëwee Ablaye Wade da ko dóor mu daanu. Ablaye Wade bi muy campagne fii en 2012. Mm-hmm. daje naag fii Macky Sall. ba mu demee lan la wax journaliste yi xam naa leen nag waaye bu ngeen demee na ngeen wax ne daje naag Macky Sall ñaari oto ko topp amul nit ant kenn mm-hmm. boobu Ablaye Wade bu ñu daan meeting dañ naan 2 millions 3 millions de personnes ñoo fa nekk mm-hmm. ba mu demee nu mu def Macky Sall da koo dóor ba mu jaaxaar mu toog ci kawam donc un président de la République au Sénégal buy déplacé ñu naan ma mbooloo mu baree baree ko topp mais c'est c'est un peu du n'importe quoi parce que c'est ce qu'il ay a de plus banal te Macky Sall mi nga xam ne mooy xool mbooloo moom di ko topp moo la gën a xam ne mbooloo mi c'est pas des gens yoo xam ne dafa génn ne day dem Thiès rek de manière spontanée ñu jug ne dañ ko gunge Macky Sall moo la gën a xam ne ñoo Ablaye Sow ñoo wut ay njaganjaay yóbbu leen Kaffrine ñeneen ñu ay njaganjaay yóbbu Bambey ci ñoom Mame Khady Diéry ñeneen wut ay njaganjaay yóbbu Xombal ci ñoom Issa Tine ñeneen wut ay njaganjaay yóbbu Fouta feneen ñu dajale ñëpp Thiès ñëw tortu Macky Sall la gën a xam. ces électeurs là. Mm-hmm. nekkoon Thiès da nga koy diviser Thiès Kaffrine ak euh, Mboroog mm. Mbour ak Tivaouane ak feneen ak feneen. ñoom aussi simple que ça. trois départements yi la ñu wax mais Macky Sall bul fàtte ne il gère les renseignements au Sénégal. Mm-hmm. xam na bu baax li xew ci réew. <laughs> looy wax fii rek moo la gën a xam. alors Moustapha euh, dañu nekk si si si dëkk bu nga xam ne mm-hmm. état de droit la comme buñ ko mën a jàngate noonu. tey tamit mm-hmm. yoon euh, wax dëgg yàlla quoi qu'on puisse dire am na fi le président Macky Sall bu bëggee génn day génn comme il le faut. parce qu'il est le chef de l'État. accompagné ba pare garde yeeg yëpp surtout. Mhm. Euh, démb ma doon déglu ci euh, keppaar gi entre 16h 17h Walf. Mhm. maam Birame Wathie wax fa lu am solo ma bëggoon ma bëggoon ci prêter un peu sa attention. Mhm. mu ne que lan moo tax mooy coow euh, Touba ba mu amee ba ñu jël directeur Modou Matar Sall mu expliquer arestation yi. Mhm. mu ne que 2016 bi ñu voté wee 16 points yu yu yu yu Macky yi. dañ ci insérer lu nga xamante ne moom mooy statut chef de l' opposition. kon loolu bu ñu ko dëgg bu ñu ko dëggalee tey jii mun nañ jàpp ne Ousmane Sonko il est le l' opposition. ko accompagner kon tey jii Ousmane ko def le tour du Sénégal waru mën a nekk un problème mhm. parce que est que chef de l'opposition da ko waroon protéger war na sax motard di ko topp buy doxal ay activité kon lan mhm. moo tax ñu war ko mën a téye alors deux choses laa ci bëgg mooy man mhm. euh, je refuse de comparer le président Macky Sall ak Ousmane Sonko. Macky Sall c'est not président. c'est le président de la République du Sénégal. am na droit di génn saa yu ko neexee ak escorte ba xam ne moom lay àndal sécurité ba war a àndal. kii c'est un opposant man jàpp naa ne c'est deux choses différentes ku nekk ci terrain bi nga nekk. Macky Sall même su fekkee ne c'est c'est vrai loolu mooy poser problème même su fekkee ne génnam yi ab politique dong la. mais mënoo différencier le président Macky Sall ak le chef politique Macky Sall benn doomu aadama bi la je suis Sénégal noonu la tëddee. mënoo ci dara su fekkoon ne tey dafa jiddi woon comme ni ni ko ni ko ñenn ñi di doon euh, ñaanee. nekkatul chefu Benno nekkatul chefu APR nekk chefu chefu Sénégal donc président de la du Sénégal donc kese débat bi du posé wu. beneen bi ay Aïcha li te foofu am solo ci sa laaj mooy di ne statut du chef de l'opposition xam nga fi mu nekk ni Sénégal ma dama jàpp ne dañoo nekk sax ci violation de la constitution du Sénégal parce que ñun ñoo vote mm-hmm. ne chef opposition dañ ko war a reconnaître jox ko statut. Mm-hmm. jox ko lépp li nga xam ne moom la war a am am na sax ci defe naa ci texte si ñu prévoir oon ne dañ ko war a jox bureau jox ko ay garde du jox ko motard boo xam ne bu dee génn moo koy tijjil yoon wi mm. parce que am na yeneen réew Mali gii amoon na fi mm. Mali gii seen chef de l'opposition dafa amoon presque traitement au chef de l'État mm. or xam nga li tax Sénégal nag euh, mu jafe che euh, Aïcha y a chercher midi à 14 heures c'est que le chef de l'opposition bi ñu am dafa arrangé wul Macky Sall mm-hmm. ji bu fekkoon ne Idrissa Seck mii ñu doon waxtaane sànq moom moo desoon dans l'opposition xëy na moom mën na waxtaan ak Macky ci seen waxu politiciens yooyu. ba mu jox ko le statut du chef de l'opposition jox ko tout ce qu'il faut xam ne voilà. mais bu ñu ne la le chef de l'opposition il s'appelle Ousmane Sonko nga dégg discours am xam son adversité ak le président Macky Sall mhm. mbir yi du yomb mhm. Mhm. parce que tey li nga xam ne moom la maam Birame wax noonu yëpp bu ko ko buñ ko buñ ko ko appliqué woon du yomb ci président Macky mais lu ci mënti am mooy quand on fait des defuñu ko pour la tête du client. defuñu ko pour Cheikh Tidiane Gomis la tudd wala Serigne la tudd. dañ koy def de manière impersonnelle. c'est-à-dire bu ñu nee chef de l'opposition ak ku mënti nekk tii dois bénéficier de tous les privilèges yi nga xam ne moom la constitution prévoir. maintenant euh, le débat qu'il pose mooy. est-ce que le chef de l'opposition dañ ko war a jëlee dans l'opposition parlementaire wala dans l'opposition euh, euh, bi nga xam ne moo génn ci élection présidentielle ñaar yooyu yëpp bu mu ci mënti doon bu mu ci mënti doon bu dul Ousmane Sonko waaye yeewu askan lay doon. Mm. parce que l' <laughs> opposition parlementaire fi mu nekk nii. moom yeewu moo ko incarné. tey xëy na je ne pas bu ñu ne woon léegi le chef de l' parlementaire mooy le chef. Mm. du groupe. Mm. bi nga xam ne moo ëpp doole. à l' assemblée nationale ci opposition bi. Birame Souleye Diop mooy nekk le chef de l' parlementaire. tey bu ñu nee le chef de l' parlementaire dañ koy xool ci candidat bi nga xam ne. moo ñëw deuxième après le président de la république. Euh, Ousmane Sonko lay doon. parce que ki ñëw deuxième. mooy Idrissa Seck dem na ci mburoog soow à du moment où dem nga ci mburoog soow comme di maam góor ngob Kanja fi des. waaw Kanja c'est Ousmane Sonko moo war a nekk le chef de l'opposition. tout à fait voilà c'est aussi la tête du client euh, mm. n'arrange pas le pouvoir alors Moustapha merci. jaajëfati Aïcha bëggoon nañoo ay amoon naa laaj yu bëri ah dañ koy kale mm. beneen yoon. Mm. ñu la nga tàggatoo. mais Cheikh kii bu ne bu ne dañ koy kale <laughs> man ñëw yi sa ñëw yi sa def dépend rek ci climat bi. ci climat bi. ngay si tout va bien je serai là vendredi. incha allah incha yàlla ñu yàlla ñu ba ba jeudi ak ñu xool. sinon maam maam hmm. Birame mi ngi fi. Eh. waaw alors <laughs> waaw waaw baax na mën na nekk aussi maam Birame wàcc. voilà alors euh, léegi léegi euh, mbokk yi ñuy daal euh, jàll.